waaw yow mii di yàlla nattu jox la xam-xam nga xam lan mooy rab pour ñun tegu si yoon ñëpp foo ñu xam lan mooy rab rab d'abord jinne la comme jinne yépp léegi nag si biir jinne yi yàlla monte mooñe leen ay xeet comme ni monte mooñee xeeti doomu aadama yi bu doomu aadama yi mu ne nekk dix jinne yi nekk nañ cent kon kooku mu la ëpp fuuf si biir loolu mu am si benn xeet boo xam ne moo mën a jëflante ak nit su lu gàllankoor ñooñu la ñuy oowee rab yi ñooñu ñoo ñëw ba yow feeñu la si seen si beneen melokaan lu mel ni euh, lu mel ni muus wala bar wala mbëtt wala jaan et cetera si xeet yooyu ñoom lañ lay lay feeñoo wala ñu feeñu na si nit koo xam ne da nga ko xam soit sa maam wala sa papa wala sa ndijaay wala ñu si feeñu la koo xam ne ab marabu la comme ab sëriñ wala ab kilifa boo xam ne nañ ko xel mu feeñoo la feeñoo nag am na doom yu waxee yow rek di nga xam ne kii lii la rab boobu nag mooy jëflanteex yow wan la lan mooy dëmm nga dëmm jinne la nit wan la lan mooy rabu sayaatiin waaw wan la yan jinne ñooy jàpp nit ñi si ay affaire cor rab afar rab wan la yan jinne lañ ji yi di utiliser pour xeex ak doomu aadama moo xam jullit la moo xam chrétien la moo xam ku mu doon mais yooyu yëpp ay xeetu jinne la loo xam ne ñoom mën ñoo jëflante keneen ku du doomu aadama doomu aadama la ñuy jëflanteel pour ñu lor doomu aadama doomu aadama lañ jëflante pour ñu lor seen moroom jinne loolu nag ñu na si passe boobu nga leeral boobu laa doon teg foofu pour ñu taxaw sa point bu xam ne dafa xaw a sensible tudd mooy problème mu dëmm xam nga dañ koy wax ñun ñëpp da may moo wax si benn cinq minutes dañ ñun ñëpp dañuy wax dëmm dëmm dëmm dëmm te xamuñu lan mooy dëmm am ñu ko gëm am ñu ko weddi am ñu ne ku ne nit dëmm la safara nga jëm dëgg la kay am ñu ne ku wax ni dëmm la noonu yóbbu police nga leer rek na la nekkee dëmm dëmm mën na nekk si yow nga koy jëf doo ko xam ñoom ñuy jin mën na nekk nga koy jëf doo ko xam ndax dëmm jinne la benn espèce jinne boo xam ne day naaw ñoom dañuy naaw dañu am laaf yàlla mu leen bind noonu du ñu dëkk si kër di fa toog du ñu dëkk si ay xeer du ñu dëkk si géej si kaw lañuy dëkk ñoom ñooy wàcc akréa yi mooy feebar yi def ay boppam bi metti mooy moo tax jigéen dafa war a mbuuru ngóor dafa war a son baxane boppam yi metti yooyu ñoom ñooy waddal feebar yooyu si kaw nit ñi léegi ñoom jinnam lu ñëw fekk nit ku set ku seet la ku dal mu fexe ba dugg ko bu ko duggee nag si da koy commencé di ko màndargal di ko di ko def ay tooke si yaramam si xelam si kàntalam fi ba si ay bëtam ba si làmbañam ba si tënk loxaam léegi kooku nag nit kooku mooy dem ba am ba am jikkoom jikkoom lan la mu xool nit wax si moom mu am mu am feebar walla mu bëtu ko walla mu tàpp ka wala mu lekk ndox moom bàyyi ka sax si lekk bi wala muy naan toogul man nga booy naan da nga toog booy naan toogoo mu duggal dafa yomb wala mu fekk la si benn espace boo xam ne danga fay lekk rek mu dugg si yow léegi nag ñu ne ñu ne dëmm moo ko jàpp ndax nga kenn waxuñu da ko jàpp dëmm moo ko jàpp dëmm boobu nag toujours ma wax ne ne jinne la du dafa duggal nit ki ko jëfam man dina dem ba jàmm ba jàngal njabar day toog si néegam di manifester nit ki ay mbir di ko sànni mu koy jàpp mu koy def ay feebar ay sax wala mu def ko ay feebar enjume wala def ko si ay feebar jaax daana sax dund wala mu def la ay boppa yu métti wala ay tànk yu métti wala mu sol la ay ngelaw ñu koy jiñ ñetti du nit kooku dëmm la jinn la léegi nag ko loolu dañ dañ koy faj mu dañ si nit ki nit ki delluwaat si sagoo buñ ko fajul moom nit dañ koy oowee dëmm mu ne ndax dinañ ko doon doonante dinañ ko nante ndax su fekkee dal daf la dalee bi nga nekkee xale boo si amee doom deret jooju da koy topp tooke tooke boobu da koy topp bu dee jigéen nga bu dee góor nga tooke boobu da koy topp loolu moo tax mu ne ñu dem ba naan famille bi ay dëmm lañ te fekk nañu loolu lu ñu war a dindi si nit la mais bu ñu ko dindiwul loolu muy continuer si moom day dañuy am tooke ñoom su ñu wax day yàqu wala lu ñu dugg day am ay problème wala dañuy jaxase ay nit wala ay technique ay feebar mais loolu du seen coobare coobare jinne ji ñu àndal la loolu la ñu wax ay jinne sayaatiin bokkul nag ah iblis. iblis nga la ma ko tax a jóg yàq nit ki gëm-gëmam doyadal ngëm-ngëmam di ko tàdd loo koy waxtu julli di nga tàdd di ko yàqal ooram di ko def loolu bon di ko njaaloolu di ko fen loolu di ko def loolu loolu loolu iblis la à part mais bii sayaatin la saytaane la léegi rab bi nag ñëw ne moom présentement mooy rabu famille ñu bëri dañuy wax rabu famille mais xamuñu ne mooy rabu famille du du nga juddu rek am ñu ne la fii mooy sa famille non non rabu famille mooy li njëkk si rab bi njëkk si yow maanaam sa sa famille bi nga xam ne ñoo nga bokkal si sa wàllu ndey wala sa wàllu baay fi ñu jógee léegi rab bi dafa nekk dale du dund ak njabootam yow nga ñëw bëgg dëkke kër gi nga fekk fa par époque laay wax lu yàgg nga ñëw bëgg a dëkk kër gi nekk fa fekk moom mu dëkk kër gi ak njabootam nga ñëw da koy déplacé mu feeñu yow bu waxee yow ngeen def seen pacte yee ñaar man kër gi ndax dëgg nga fi ak sa njaboot dëgg naa ak sama njaboot maa ngi dëkk si garab gi wala maa ngi dëkk si xeer yi wala maa si biir ëtt bi ngeen nekk si loolu nag xanaa boobu topp la topp sa njaboot juddu woo juddu ma ñu dund loolu ay at war ba ñu dem ba suulee nekk ay famille loolu tam famille la moo too kaa jëndi baneen ni mooy rab bu siyax sa waajur boo xam ne sa maam maati maam la wala sa maam la mu siyax mu ñu am si doom doom ju am nit wala mu am jinne mu am ñi tax jinne boole woo ko taxaw doom jooju rabu famille lay doon seen rabu famille lay doon mën naa ko jël benn exemple ku ñuy wax jaajaat jaay wala maam biram ndóoy biram ndóoy kumbalaam mbaa ko jur ah maam biram ndóoy ñu am doom ko biram ndóoy amaat doom ñu am ñaari doom benn bi amul tur benn ñu tudde ko biram ndóoy léegi doom jooju fa lay bokka day bokk si xeetu jinne nit mais du man du mën a fesi jinne du mën a fesi nit day yem mën na ax nit ñi mën na dundax jinne yi kooku noonu day am day nekk sa rabu famille doon ah rab boo xam ne dafa nàmpal sa doom nga am doom mu am doom mu jël sa doom récupéré sa dénkal doomam nga nàmpal doomam si ween yow moom mu jël sa doom ñëw nàmpal ko si weenam loolu am na rab dina jël doomam dénk ku jigéen mu porte ka xamoo ne ponteuse dañ ko xam ne tubaab ah kon ñu jël doom ñu ëmbal la ko yow loolu dañ koy ooyee ñoom mu jël doom jooju dénk la ko yow doom jooju sa sa deret lay nàmpa yow boo nga wasin ko soo ko wasinee mu mbéy ak yow un an deux ans trois ans quatre ans mu récupéré doomam wala un an mu récupéré doomam wala six mois mu récupéré doomam wala at mu récupéré doomam bu pare doom day dem rab doom boobu rab famille doom da lay feeñuwaat après xam nga ne maa ngi sa wet ma jox xam benn exemple que mel ne Mboose Kaolack moom dafa yaayam dafa seex ñaari doom mu ne ko foofu ñib na ko samay mbokk mais manaax yéen maa leen juut mais dama ñëw ci yéen pour nga xam ne maa leen encadré ñu dundaa ak moom loolu boo sa dem mais xamal na leen jàngal na leen lu bëri si affaire am ne boo ngeen di boo leen feebaree ni ngeen def bu dee amee problème bii li ngeen bu amee problème bii jàngal leen lu mu bàyyi ko mu dem mën naa beneen. boo xam ne c'est en nous biir famille ku ñuy wax maam Jilaat bokk ak ay nit ne ñeenti nit ñu bokk ndey ak baay moom mu juróomeel leen mu nekk seen biir mu jékki-jékki réer leen jékki-jékki feeñu leen xamante ne maa ngi seen biir man la diw deew ma may place tel ñu ñëw fekk fa gis ko mu wax leen li muy dundee ak li mu nekk yëpp am nañu dina def yi nangam wax mu tam du ma dundee ak sama njaboot mu won mu présenté leen njabootam demaat dina xaru ji comme ñu mel noonu moo fi nekk. amuñu lu ñuy yàqal ñoom ji leen tax a jóg ñaar la mooy fexe ba jinne dem yooyu di yàqal ni mu aadama am accès ñun bu ñu ñëwee ñun ñoom ñu xeexaa ñoom ba ñu mën ñoo bañ a yàqal dara beneen bi mooy ñu mën ñoo indi ay problème mu coru rab ay far rab jinne yooyu ba ñu am ay accès si ñun beneen bi mooy ñu bañ ñoo bàyyi seytaane yi nga xam ne ne dañuy defar ay njabar mooy sëriñ si defar jabar bu ñu amee accès ñun maanaam bu ñu sànnee korte mu bañ ñu jàpp bu ñu sànnee ay liggéey mu bañ ñu jàpp bu ñu dësee mu bañ jàpp bu ñu sànnee si ay takkee ay garab bu ñu bañ ñu jàpp bu ñu naatalee mu bañ jàpp mais tere ñu ñu wax ashadu an laa ilaaha illallaah ashadu anna muhammadan rasulullaah tere ñu julli tere ñu la oor tere ñu la dem màkka tere ñu la jéggi na génn asaka tere ñu la am jabar tere ñu la am jëkkër kon rabu famille yàqul doomu adama dara